mbokk yi tedd yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bi nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci sangub sangi sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadim Rasool bu baax a baax di ñaanal Serigne Muntaxa yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér mbokki jullit yi nga xam ne jamono bii temm yéen a ngi bàyyi xel seen télévision tubaa Vision fii ci buntu kër sëriñ Fallilou ci plateau spécial yi nga xam ne ñu ngi koy def mu ñeel waajtaayu bisub Serigne Touba boobu nga xam ne bis na ko suba la muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar loolu moo tax nag ñu teew fii ak ay boroom xam-xam waaye teew fi ak ñoo xam ne miin nañ leen fii xam nañ leen fii ndax waxtu wu ne ñi ngi ànd ak Touba Vision ay liggéey muy Serigne Ahmadou Bamba Seck. di boroom xam-xam bu mag ak sëriñ Ahmed Dame Gueye moom it di boroom xam-xam bu mag waaye bokk ci membre Touba Vision yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi mu bokk ci équipe bi kon sëriñ Ahmadou Bamba Seck dañ lay bàyyee kàddu gi nuyoo doog a ñëw ci Serigne Dame Gueye. bismillahi rahmani rahim. alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursaliin sayyidina wa nabiyina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ma bariqa barxun walaax wa ma garrada xamaamun aw naax wa ma naada almunaadi xaya ala alfalaax imalu ala daawuda shukra xalilan min ibaadi ashakur xamdi wa shukri liman kulli bihi saada lahu ridan duuna suxtin inda sarsaara mbokk ji di mbokk taalibe yi ñu leen di nuyu baax di leen siyaar ci barab bu tedd bi nga xam ne moom la ñu nekk muy Touba di siyaar ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi topp ci seen télévision Touba Vision euh, di siyaar tamit yéen ñi nga xam ne ñoo leen bokkal plateau bi seen Cheikh ak Cheikh Ahmad Dame Gueye ñoo ngi leen nuyu baax a baax di leen siyaar incha allah di fas yéene ànd ak yéen ak jotaay bi nga xam ni mooy jotaayu màggal yi incha la rabbul alamin waaw jërëjëf Cheikh Ahmad Bamba Seck ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne nuyu ko téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan Touba Vision jamono bi nga xam ne ñu ngi àddu ngeen di teewlu waaye dañuy gestu tamit demaat ci beneen mbokk muy Serigne Ahmed Dame Gueye di borom xam-xam di kun miin ci plateau bi si Ahmed Dame asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne Cheikh Dieng. wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arsida لقد خدتني بالالف المقفي نيل المقامات العلا بالتي بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا أسبل ستوري أصلح أموري كسر خيور بلا كدائي mbokki jullit yi mbokki taalibe yi baaxoo ànd ak ñun te di ñu déglu fuñ mën di nekk ci réew mi di ànd ak Touba Vision ñoo ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye di ziar ak a ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Basir di ñaan sun borom yàggal ko fi lool te wéral ko balim na ma liggéey yëpp mu def ko ni mu ko bëggee waaye di ko ñaanal maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Cheikh jëmb di ko ñaanal mbooleem koo xam ne yaa ngi sol sa dàll te dara taxut nga sol sa dàll lu dul wuutu yàlla ci inna nazal na zikra wa inna lahu la xaafidun di leen siyaar bu baax Serigne Cheikh di siyaar Serigne Ahmadou Bamba Seck mi bokkal jotaay bi di wax mbokk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ah jërëjëf euh, Serigne Ahmed euh, Dame Gueye ci nuyu am solo boobu ak dugg am solo boobu nga xam ne dugg nga ko jotaay bi kon mbokk yi seetaan tey dama leen di wax ne leen ndaje bu bag bi leen joxoon tey la ndax tey borom xam-xam yi nga xam ne ànd nañoo ñoom tey fii muy Serigne Ahmed Dame Gueye ak Serigne Ahmed Bamba Seck tey jàpp naa ne duma ne da ngeen dégg lu ngeen mus a dégg waaye da ngeen dégg xam du ngeen ci doyal ci wàllu xam ci wàllu kan mooy sëriñ bi ci wàllu naka la sëriñ bi doon sante ak naka lañ waroon a toppee sëriñ bi loolu lépp bu soobee yàlla danañ ci dikkaat kon si Amadou Bamba sekk su la doon laaj lan mooy ak sant loo may tontu. cant mooy nit wala xéewal ñëw ci yow nga sant suñu borom ci xéewal googu mën a defal bu ñu delloo waate ci alquranul karim walla ñu dellu ci xase Sëriñ Tuuba wala ñu jël ci xadis dinañ fekk baatu shukuru lu baree bari muy ñëw shukuru ak xamd duñ benn subhaanahu wa taala bi mu ñëwee ci suratul dani alhamdu lillahi rabbil alamin boobu xamd la tudd mooy xamd cant lay firi foofu mu ñëwaat ci beneen bërëb daani la in shakartum la azidannakum foofu baatu shukru la utiliser muy ak cant kon muy ñaari baat yoo xamante nii day faral di ñëw ci alxuraan lu bari waaye bu ci nekk di mandargaal wala muy firi ak cant ci wolof kon buñ ko doon laaj laajte lan moo wuute ñaar yooyu maanaam xamd mooy xéewal gu agsi ci yow nga yëg ko nga ñàkk koo yëg moo ci yem yegsi na ci yow moo tax subhanahu wa taala ci suratul fatiha ni alhamdulilahi rabbil alamin cant war na yàlla ngir ñim ñi defal noyyi gi ngay yég gi nga xam ne mi ngi ñëw ci yow air bi mi ngi ñëw ci yow nga koy noyyi asamaan si suuf si ngay dox wér gi yaram gi nga am yu mel noonu nga xam ni lépp subhanahu wa taala ni mu ni mu ni binde àdduna bi nga xam ne mi ngi naan wa fi anfusikum afala tubsirun di ñu joxoñ suñu bopp ngir ñu xool ndax yéeme gi nga xam ne àdduna bi yéeme na ko ak xéewal gi nga xamante ni subhaanahu wa taala wàcceel nañu ko ci kaw suuf dem ba ñuy wax ni su ngeen doon xool xéewal yi ma leen may man subhaanahu wa taala du ngeen ko mën a wàññi ndax bari gi mu bari ndax yaatu gi yaatu xéewal googu nga yëg ko ak nga ñàkk koo yëg moo ci yem mi ngi yegsi ci yow kon foofu xamd lay si lay firi waaye bu dee shukru xéewal la gu ak ci yow nga yëg ko ashukru maanaam ma defal la dara teraanga nga ni nga ni ma jërëjëf ndax teraanga gi yegsi na ci yow loolu day wut ak tagg ak maddax maddax lu rafet lañ koy def lu taaru des na ko def lu am xel des na ko def lu amul xel mi ngi mel ni boo doon misaal njàmbu jóg mën ngeen dafa rafet amul xel kon yooyu yëpp ay baat la yoo xam ne alxuraan da koy utilise mais alxuraan su fekkee def utiliser baatu xamd day firi cant bu utilisé baatu shukru de firi cant waaye seen wuute ñoom ñaar mooy bii xéewal gi daa yegsi ci yow nga yëg ko bii xéewal gi yegsi na ci yow nga yëg ko nga ñàkk koo yëg ci yem mais mi ngi ci yow kon pour tënk rek ñaar yooyu ñaari mbir la yoo xam ne ci biir alxuraan da ko ci fekk bii xam hamd lay firi bii shukur lay firi Sëriñ Tuubaa utilisé na ñaar yëpp mu ni di wa shukri liman kulli bihi sara lahu ridan duna suxtin inda inda sarsara kon dafa utiliser hamd wa shukru kon ñaari baat la yoo xam ne bu ci nekk day di ak cant bii xéewal la gu yegg ci yow nga yëg ko bii xéewal la gu ci yow nga yëg ko ak nga ñàkk ko yëg mais yegg na ci yow kon ñaari yëpp Sëñ Tuubaa daana ko utiliser muy alhamd ak shukru ndeysaan Cheikh Ahmadou Bamba ni nga ko leerale am na solo lool ci am di wa sukri li man kulli bi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsara comme ni nga ko waxee ci ñaari sant yooyu santu xol ak santu làmmiñ mooy yëg ne xéewal yi ñëw na ak yëg ni xéewal yi ñëw na nga wëlbatiku di ko sant muy sant googu dafa mat dafa matale lépp muy alhamdulilah waaye sukkuru nag mooy sant gi nga xam ne jaam bi dafa yëg ko yàlla defal mu jóg di ko sant ngir ca loolu la ko yàlla defal loolu moo tax ci leeral boobu it dafay mel ne am na solo waaye dafay mel ne sëñ Dame Gueye dama lay laaj Serigne Touba Khadim Rasoul yaakaar jaam ñi tey ak ëllëg moom naka la daa sante sunu borom ginnaaw bi mu yëgee ne xewal ñëw na ci moom. jërëjëf Serigne Ahmadou Bamba Seck ci yaatal bu am solo boobu mu def ci wàllu sant ak cant sant ak cant sant nag lu biir la. waaye cant faaw mu fës. looloo waraloon yàlla di. nettali yonentii mi xéewal gi nekk ci ak cant waaye ne leen na ngeen def attention cant lu jafe la ba ñoom cant attiré seen attention ñu koy ñaanaat yàlla naan ko afala akunu abdan sakura kon cant lu am solo la lu yàgg la nga laaj sant ak sëriñ bi sëriñ bi daa wajjahtu kulliya kulliya la wax bi hamdin wa sukur kon sëriñ bi léppam ci ak cant la ko def cant googu nag lu yaatu la ndax lees mën a làmbu daj la lees mën a xool gis la lees mën a déggu dégg la ndax ci cantam yooyu ci ay def def yooyee moo waraloon muy wax ne نفعني نفعا به أنفرد نعم الكريم الأكرم المنفرد yàlla jox na ma teraanga joo xam ne man Ahmadul Xadim man kott la fekkuma ci kenn kon sëriñ bi wéet na ci fekku ci kenn la wax bu ci fekkoon kenn wéetu daa wéetali ji waaye def ne kenn fekkuma ci buñ ko ci fekkoon tamit wéetatu dañ koo wéetali si waaye an faridu la wax loolu day firiwaat la wax na yaquudu lii wala yaquudu minni illa liman situ bi isni minni kon yooyu yëpp nga xam ne sun borom defal na ko te defalu ko ku njëkk defalu ko ku mujj te xalaatu leen koo defal loole ca la Serigne Touba sukkandiku ba de woote ak cant loolu nag lu yaatu la ndax Serigne bi bu dee màggal gii mu woote loolu damay wax ne Serigne bi daa niru ay yàlla aw doxin loolu ko Serigne Mbaye Jaxate doon wax naan ko niru nga yàlla aw doxin niru nga yàlla aw jëfin niru nga yàlla aw waxin yàlla nga yow juy niru nit loolu lees ko mën a firee alquraanul karim ba mu jeex yàlla lu ñuy jariñ lu ci nekk def ñu koo digal yaa ayyuhal lazina amanu def leen nangam yaa ayyuhal lazina kafaru moytu leen nangam yaa ayyuhan naasu def leen nangam te moytu nangam waaye bi mu dikkee ci daj dëpp gi moom yàlla daal jiital boppam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ba pare daa di woote ak ndimbal nga xam ne yàlla bu doon wane ak télé ci sa julli ci yonent bi la wane ak télé ne kaay leen def le ma ko Sëñ Tuubaa tamit mbooleem natt bu ko suñu borom teg da koo da koo jël laxasaayoo nattu yi jëfe nattu yi ba am ci ndamal boromam waaye daa wane waat ak télé ni yàlla wane woon télé ci julli yonent bi sant yàlla ba pare ne kaay leen ngeen sant le ma yàlla loola nag daa joxe aw yoon wees koy defee ndax buñ dee wax cant Sëñ Tuubaa gi nga xam ne sëñ bi da koo woote damay wax ne yàlla bu fekkoon kuy manqué la màggal la manqué Sëñ Tuubaa ñëw complété ko ngir defal ko ko ndax lii wane kenn sëriñ bi mooy mboolem li fi amoon lépp li sëriñ bi woote rek mën a ànd ak turu yàlla ni nga xamee ne ak njabootam ñoo mën a woote woo turu yàlla ndax mu muridu léegi rek nga wax murit nga mën a jël mu daaf léehi ci mu daaf ilayhi waaye leneen loo wax idaaf ca léehi du jub niki noonu laylatul xadr yàlla mënoo ko wax kasu rajab yàlla mënoo ko wax tabaski yàlla tamxarit yàlla mënta am moo tax màggal yàlla mën a am mu daaf day am yàlla mën a ñëw di mu daaf ilayhi kon sëriñ bi damay wax ne bu yàlla amoon luy manqué ku ko màggal la manqué woon te yàlla ku daa bëgg ñu koy yëg yàlla ku bëgg ñu koy yëg la ndax ba mu naan alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñëpp xam nañ ne moo ñu bind moo ñu sàkk moo nu moom waaye daa pare di présenté boppam naan arrahmaani rahim yi maliki yow mi diin ki la bind bind sa nday bind sa mbaay xam nga ne moom moom lépp waaye mi ngi lay wan boppam naan la maliki yow mi diin kon yàlla ku bëgg ku ko yëg te sëñ Tuubaa ku yëgoon yàlla la looloo waraloon nag màggal gii ñuy wax dañuy ci xamaat njàmbaaru Sëñ ndax màggal liñ waroon a xam ci ak cant ni ko sëñ Ahmadou Bamba Seck waxee léegi mooy yàlla defal la xéewal nga koy sant waaye Sëñ Tuubaa au contraire lay sante mooy génn war a dajeek ay natt du ay xéewal ay nattu la war a dajeel di sant loole bu doon ay xéewal kon Daaru Salaam lay màggal waaye génn gi waroon a génn ndax lépp daaru xuddoos gi la xewoon ndax il faut que ñu taarixal ko daaru xuddoos la njëkk a teeg yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax ko waxam joojee mu wax ne ko bokk ci yow laa bëgg ba waxanteeg yonent bi ba yonent bi xamal ne ko yow Ahmadou Khadim lii nga bëgg suñ baroom da koy jaay mu ne ko bu ma sañee xam njëgg naa ko xam bu ma ko sañee dégg naa ko dégg ba ma ko sañee gis naa ko gis mu ne ko metti na bëgguma woon nga dugg ci ndax am na gaa yu fi jaaroon ñu teg leen ko waaye daa sottiwut mm. kon liñ mën a xam mooy Sëñ liñ ko tegoon am na ñuñ ko tegoon waaye doo settiwut moo tax sëñ Moussa Ka doon wax naan yen ban yenoon kon yenoon nañ leen ko xut bu ya ak abdaliya waaye nag te attanuñ ko sëñ Bamba ko fab raw gaaya loolu la wuutee gaay waaye nag la ci yéeme mooy déng déng di wéy te tawatul balaaya sóoratu laawaani la am ci laaya déng déng mooy jël dara teg ko sa bopp di dox te doo ko jàppeeg sa bopp ta du wadd loolu mooy déng déng sëñ bi nee na bi ma waxanteeg yonente bi yonente bi daf maa wan ak kilifteef ne ma xaaral ma laaji saa borom ne ma danaa la joxaat rendiw fii ci Daaru Xuddoos mooy fii kër sëñ Mbàkke Madina gi nekk ci néegub sëñ Mbàkke Madina bi fi la si Rasulillahi joxante woon ak sëñ Tuubaa rendiw ngir andil ko rapport bi mu jëlee waat ca yàlla ndax daay bind rapport bi yóbbu ca yàlla yàlla war a valider andil sëñ Tuubaa nee na yonent bi bi muy ñëw ci man daa fekkoon yàlla ne ma Ahmadu ma ne ko Mbàkke mu ne ma gars yi ni daan def di tagg yonent bi nu mu leen neexee wala di ko tagg ci baaru bu mu leen neexee wala ci anam bu mu leen neexee yow Ahmadou Khadim dama lay teggil loolu yow Ahmadou dama lay wax ne heure bii li nga tagg yonent bi bu heure bi sensé da ngay sensé wayin wi at mu jot da ngay sensé ni nga koy wayee waxtu wu jot da ngay sensé ni nga koy wayee bés bu set da ngay aw sensé ni nga koy wayee di sensé maddahi di sensé baaru yi moo tax Sëñ Tuubaa nee na bi ma amee audience ci Rasuul yi mu war maa indi rapport bi mu jëlee ci yàlla nga xam ne yonent bi bi muy ñëw ci man daa muur xar kanamam nee na ca laa koy waxee ne ko bis ni ki tey at mu jot damay sensé ci yow ay bi ala man xalaya walastu sadiya lahu kulla aamin hadaya madiya nee na ko at mu ci jot damay soppi mbir yi may jëmale ci yow nee na nag yonent bi dama koo nam woon ndax géej gëma ko gëj a gis daaru ku doos ca bayti te namm naa ko ngar cofeel gi ma amoon ci xar kanamam nee na ci loolu yonent bi daa muur kanamam bi muy ñëw ci man nee na maa ngi koy tagg ci xalaa man di ko tagg di ko tagg yonent bi muriwut kanam gi ma bëgg mu muuri kanam gi ma ne ko salaatan turini huna wacahu nee na bi ma a huna wacahu rasulillah daa muri xar kanam gi ma jàkkaarloo xarab kanamam allahu akbar nee na ma di ko tagg di ko tagg ba ma yegsee ci mu rabban mu rabbin rasulu nabi nee na rasulillah dini kaala lax soo takkal ma ko sama ndigg nee na booba laa xam ne man ahmadul xadim danaa liggéey ji ma waral mu ne yàlla si ña jox yeneen ba gaa ya si ña ñu jiital ñu jiital bamba confirmation boobu rasulullahi andiloon ko booba la la wax ne ba ma takkalee laxasaay ga sama ndigg laa xam ne danaa liggéey léegi nag ñaar daa am rasulullahi def na ko sa nee na nattu yi li ci gën a tuuti mooy da ngay bàyyi wokkatu da ngay bàyyi dox di geesu ñaari sabab yi faaw am sa nijaay sëñ bu soobe faaw mu génn adduna ñu soog lay teg nattu yi ndax feeg mi ngi ci kaw suuf buñ la tegee nattu yi yàlla da koo rus dana ñaan yàlla teggi ko ta buñ ko teggee doot ñu la ko teg ndax danañ la far ci kuréel ne ko beneen bi ci des mooy sa dëkk bii di Touba faw nga génn ci ndax man yàlla yaa ma ñaan ne ma naa la ko aaral aar naa ko ba balaa du fi wàcc kon faw nga génn dëkk bi ndax wal tudxilal maslaha fi yaddi wa fi daari wa fi wa sabitan wal haadil wa fi lool Sëñ Touba ñaanoon ko ci dëkkam bi nga xam ne mooy Touba loolu tamit moo waral ñaari sababa am safarul xaraaj ak safarul xuruj mm. moo tax ba nijaayam génnee di sëñ bu soobe ci la sëñ Touba laxasaayu ngir génn Touba gi nga xam ne nattu du fi wàccee ngir dajee nattu mm. mooy xarajtu ma sabti rabia safar mm. li matil muxtaari fii sehri safar kon bi mu génnee Touba dem Mbàkke Bari Mbàkke Bari la fa xew juróomi weer la fa am dajeeg ñi nga xam ne ñooy noon yi daje gi mu daje woon ak noon yi nag noon yi bi fa amee juróomi weer lañ ko jaxaseeg noon yi ndax tubaab bi dañoo yàgg a am ak bàyyi xel ci doomi soxna yi ndax bàyyi xel giñ doon bàyyi mooy dañoo bombardé woon Maba Jaxu Maba Jaxu doomu soxna la woon booba lañ noppee am jàmm ngir jamono ju ci nekk jàpp ne doomi soxna yi dinañ def pexe ngir dal seen kaw moo tax bañ leen jaxaseeg sëñ bi ñoom it loola yóbbu seenum xel ñu jàpp lu war a mën a nekk la loola waral bi ñu visité këru Mbàkke Bari ga bala gisuñu fi dara ba noonee ñu demaatee ba sëriñ bi ni mu amee ndigal ci boromam génnee Touba e Mbacke Bari ngir dem dajale jeeg noon yi boobee mooy i xarajtu yawma sabti saamin al asar li xidmatil muxtaari fi sehri safar li wuteeg sëriñ Touba ñëpp nag maanaam képp kuñ fi joxoon convocation ne la suba ngay wuyu maa mën boo xam dañ ca dem mu ñaanal li la ngir suba mu woyof waaye sëriñ Touba rek lañ ne ko suba da ngay wuyu mu ñaan suba teel jot bam dem wuyu ji kon loola ak njàmbaar moo tax sëñ Mourou Moussa doon wax ne njàmbaar ak fit ak ngor kuñ koy wax ku dul sëñ Tuubaa dañ la koo jiiñ waaye moom rek ko am nga xam ne kon loola lees ci mën a xamee yaatu na nga xam ne natt yooyu goo nga xam ne suñ borom da ko doon tege ba mu wax la mu waxoon ba génn tund jeewal la njëkk a dajeeg noon yi fa la gisee waat ak soppeem ba rasul léegi te li gën a yéeme mooy yàlla ba mu wa bindee aadama wa is qaala allahu lil malaikati isjudu li aadama fa sajjadu illa iblisa abe iblis ba mu bañee yàlla noppiwut ci moom daf ne ko far naa la sama kuréel gi sàkk naa sawara danaa ko feesal yàgg ku la topp mu ne ko yàlla danaa feesal sawara yàgg sa gaa eh, ak sa yi danaa leen jàddal yàlla ne ko inna ibadi lay laka alayhim sultaan sama gaa yi dëgg-dëgg mënoo ci ñoom dara Sëñ Tuubaa tamit ba mu tollee jeewal googee la wax la yàlla waxoon iblis mooy inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayastaminni llahu inda jeewali iblisa isnadaytu hudiyawali sëñ Tuubaa rek mës a wax ne tàqalikoo na maag iblis foofee ca jeewal la nasaraan bi njëkk a dajeeg sëriñ bi ndax booba la ko rasuulay ne ko saa borom nee na nattu du ma ci dimbale waaye may na ma ci lenn li ma ci may mooy natt bu war a ñëw danaa la wax ahmadu natt sàngam dana ñëw nga xool noo ko gérer nee na nee na ma ba sa diggante ak noon bii moo ci dox boo génnee montagne bi dajeeg say noonu nee na foofa la rasulilah yi ñëwee gaw ma moo ëhlu badar nga xam ne kon dañuy wax ne sëriñ bi bu doon ëhlu badar ñoo ko tax di jub kon du yegg nar ndax jeewal la ko ëhlu badar njëkkee gaw booba tubaab bi njëkkee gis ëhlu ñoom it amuk tiit aku ragal ci ki nga xam ne mooy ku tedd ki loola tamit sëriñ bi di continuer ca loole ba ni mu demee Louga bi mu demee Louga la lu lu yéemee xew foofu si maam Cheikh mm-hmm. bi mu demee Louga maam Thierno Ibra Faati mi sëriñ bi kon njaboot gi daa yabal sëñ ma banji ne ko ma banji mu ne ko Mbàkke mu ne ko demal ko demal nga dab ku tedd ki ne ko Thierno Ibra Faati nee na ba nga fi jigee ba léegi doom jooyatut ci ginnaaw ndayam mhm. xar yi lekkatunu mhm. fa si sax buñ leen wut wuddalatee duñ ko lekk dara wëralu ko lu du dañoo xamul mu mujjee tubaab bi sëñ ma banji nee na bi ma ñëwee Louga li ma yéem ci sëñ Tuubaa mooy tubaab yi ko doon jël si di soldaar ñëpp ngi sonn tëdd di nelaw sëñ Tuubaa nekk seen biir di julli nee na bi mu jullee ba noppi ne ma ana kooku ma ne ko ma banji mu ne ma ana lu doonoon tànki ma ne ko maam Cerno Ibra Faati moo ma yónni nee na ma ba mu fi jugee ba léegi doom jooytu ci ginnaaw ndayam xar yi lekkatul fas yi sax bu ñu leen wuddalatee duñ ko lekk dara wëralu ko mooy lu dañoo xamul fooy mujjee ak tubaab bi sëriñ bi ne ko ma banji ma banji ma banji ma ne ko mu ne ko kon yéen a ngi foofee ne ko ma banji mu ne ko Mbàkke mu ne ko tisbaari tey jii su ma neexoon dëpp ndax la ma doon wut lépp am naa ko fi ne ko ma banji mu ne ko mu ne ko neel Cerno ñaari mbër bu ñu waajee seen kër ba ñëw ca làmb ja kàkk ju njëkk ja kay daan xam na kay daanu xam na waaye day fekk wecc rocc ku wees ne ko eh, liggéey bi may liggéey li ji sotti na ne ko neel ceerno na toog néeg ma damay liggéey ji rek su ma ñëwee ñu añ kon sëriñ bi waxoon na ne dem gi ni ma leeree dikk gi ni ma leeree dem gi leereewu ma kon loola xam fa mu jëm moo ko waral loolu lépp nag tubaab bi li mu bëggoon ci suñ tubaab ñaar rekk la mm-hmm. mooy bàyyiloo ko lim nekk wala ñu sàkkal ko pexe waaye sëriñ bi fuñ ko mës a yóbbu lam nekkoon lay nekk mooy allahu rabbi wala ushriku bihi yàllaay saa borom te duma ko bokkaale loola waral bi mu demee ba jub ndar benn tubaab bu amoon yërmande ci sëriñ bi moo ñëw ba dox da eh, ba tolloog moom ne ko boo amee looy waajal waajal ko ñoo ngi yegg ci kilifa yi sëriñ bi ne koy hasbiyallahu waktafaytu bihi yàlla doy na ma doy loo naa ko mm-hmm. nee na biñ yeggee lu yéeme xew na biro ndar ndax li gën a yéem ci njàmbaarug Sëñ Tuubaa mooy bi mu yegg see bureau bi ci ndar julli fa ñaari wa rakkaam yooyee nga xam ne rakka bu ci ay rakkaaye wax nañ ne baqara ak surtu Ali Imran la fa jàng waaye lu ci mën di am mooy 45 minutes wax nañ ne julli ga mat na ko wala 43 minutes lu ci mën di am pili de 40 minutes bi bi mu jullee ba pare too waxut ak ñoom lenn ñoom ñoo bind seeni rapport lañ tuumaloon sëñ bi yëpp sëriñ bi tiim di jàng alxuraan ñu ne ko nee nañ yaa wax nangam yaa wax nangam yaay nar a nar nangam biñ waxee ba wax ji nar a bari sëriñ bi ne sikkat ne leen woo leen ki ko wax daal di sëggaat ci njàngam ah, nga xam ne mësta tiit mësta raf ci ñi nga xam ne ñooy noonu est-ce ba noonu mu xewee la mu signé. ñëpp di ko wax. Mm-hmm. am na ñu naan mujjug surtout euh, mujjug xasida ak Madlabul Fawzayni la signé. Mm-hmm. ñu naan li waaye li ci ak wóor te wér mooy. Mm-hmm. sëriñ bi li mu signé mooy raditu billahi rabban wa bil islami diina. wa bi sayyidina muhammad nabiyan wa rasulan. wa bil qur'ani karimi dalila. wa bil islami diina daal di def qul wallahu ahad allahu sama. lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad daal di wengal kayit bi daal di wax wallahu ala ma naqulu wakil. jërëjëf sëñ Dame barakallahu fiikum leeral yooyu nga leeral ci taarixu sëriñ bi am na solo ndax loolu mooy dëgg-dëgg cant gi ndax loolu ngay leeral moo waral tey jii ñu nekk ci cant gi kon cant gi dafa am lu ko sabab ab coonaa waral cant gi waaye ndekete sëriñ Tuubaa moom bi ko yàllay tegub coona ci la tàmbalee sant yàlla ndax sant dafa bokkoon ci ay mbiram ba da ko daa yëg di ko def te keroog ba mu wéetee nga xam ne fa mu nekk ay noon donga fa nekk ak yàlla danaa wéetali ko ak cant nga ne sëñ Tuubaa sant yàlla fu mu mën di toll da koy def bu neexee ak mu naqaree sant yàlla kon leeral yooyu nga def ci état bu tukki bi lu am am solo la dañu dellusiwaat ci léegi ngir nga wéyali ci euh, damay góotul ba tukkaat si Amadou Bamba sekk waaw si Amadou Bamba Seck dafa bari léeg-léeg ci nit ñi ñuy taawile ak cant akuk bokkaale ñu leen di boole léegi sama classe gi nga ne amuñu xam-xam léeg-léeg nit man na cee ubbee benn fatawa ñu topp ko bay ŋàññi ñi nga xam ne dañuy sant yàlla dégg naa sax kenn koo xam ne borom xam-xam lañ koy wooyee mais man jàpp naa ne du borom xam-xam ndax sëñ Tuubaa ne inna allazina lam yaxsa rabbal lay sa bi alamin wala om nal fu noonu te bokk na ci ragal yàlla yàlla dogal nga nangu ko loolu ci man ragal yàlla bokk mu ne maanaam ñiy màggali di rey ay gàtt di dajale ay nit gàtt yooyu ñuy rey bu ëllëgee daan ko layoo ak ñoom loolu ma bëgg na nga dikkal ma ci ki nga xam ne pas-pasam leerut ba tax muy diingat ak sant loo koy si ci Ahmadou Bamba Seck waaw li ma koy tontu moom yaakaar naa lu lu yomb la mm-hmm. ndax du man maa ko tontu may arxuraan moo ko tontu mm-hmm. ndax euh, suñu delloo ci arxuraan bari na foo xamante ni subhanahu wa taala mi ngi fay sant jaam yi pour ñu sant ko ashkuru ni ashkurukum dañ shakkatum azidannakum ak yu neen yu mel noonu kon ndigal la joo xam ne ci suñu borom la jóge mu sant jaam yi ngir ñu sant ko baneen bi mooy dañoo joxoñ yonent bi salaa salaam ni wa ma ataakum rasulu faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu te sax na ci xadis yu wér péng ni yonent bi gannaaw bi ko suñ boroom joxe xéewal yim ko jox ba pare ne ko wa innaka la ala xulqin azim Sëriñ Tuubaa dikk ko xat kaana akmalul wara xalxan wa xulxan zahara salli alayhi zulwara bi alihi wa sallimi ca beneen jës bu sant ko won ko ni kat fi ko suñ borom teg moom sallallahu taala alayhi wa sallam yonent bi salaa sallam xéewal googu suñ borom defal ko ko tànn ko tànn ay jaamam yonent bi santiir loolu ko suñu borom defal neex gi neex ak fi mu ko teg mu daan julli di julli di julli di julli ba tànkam ya sallallahu taala alayhi wa sallam nagam daan julli ba yaram wa xiif di ko jàpp ba muy jël xeer di ko takk ci di ko takk ci biiram bu sell ba sallallahu taala alayhi wa sallam bi ko sayyidatuna Aïcha waxee ni ko xanaa suñ boroom néewu la jéggal naa la sa bàkkaar yu njëkk yu mujj ndax boo demee sootul fatxi inaa fataxnaa laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu maa taqaddama min zanbika wa maa taaxar mooy amul lu ko yàlla topp lan la tontu afala akunu abdan shakura waxul shakir de shakur la wax shakur mooy du mës jóg di cant li ëpp doole jaam di ko defal subhanahu wa taala mooy di ko cant même yonent salaa bi muy wax mandargam jullit lu mu wax ajaban min amril mu'min na amrahu kullu xayri in asaabahu charra chakara fa kaana xayran lahu chukur la wax mu ni yéemu naa ci jullit bi nga xamante nii léppam xéewal la mooy jullit léppam xéewal la ñu ne ko ah lan moo tax léppam nekk xéewal mu ni jullit mooy ki nga xam ne su ko suñ borom dafa lay xéewal chakara fa kaana xayran lahu wa in asaabahu darra sabara fa kaana xayran laxu bu fekkee tamit safaan da koo jot day muñ lépp nekk xéewal kon jaam bi étape buñ mënti toll daa war di cant moo tax Sëriñ Tuba moom léppam nekk cant mu naan yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manaata fa ridan nag la ci teg wa sabr doog a ñëw yàlla soo ma joxee ma sant waaye soo ma xañee dama lay gërëm du sant day gërëm. ridan wasabru jafe naa jafe naa boole de. ah lu jafe yombut. il faut nga àgg ci fu sori ci suñ borom xàmmee lu neex ak lu naqay du doo ko xàmmee Serigne Touba maanaam dem na ba suukar bu daan suukar day suukar ba mu tëmb. Hmm. day suukar ba mu tëmb suukar si day suukar ba mu tëmb mujj gi baaraamam bu sell ba lay dugal ci ndab li. doo nga xam ne li mu ci suukar bari na mu ni li waral loolu mooy dara sabatu ko allahu akbar du suukar du lem du dara xam lan moo koy neex yéen di salaa di ko wax lu neex di jaamu yàlla loolu mooy li neex ci moom loolu étape la loolu ab dayo la boo xam ne ab jaam dafay toll yaakaar naa sax sëriñ bi ci boppam mhm. dem na boo xam ne su ma lekkee xorom du ma yëg ne dafa saf mhm. su ma lekkee suukar du may dafa saf dara waralu ko lu dul ki saf ci man te dootu sàppi muy Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam te li waral loolu nag mooy sallallahu alayhi wa sallam mu moom daa féete ñëpp kaw mm-hmm. ci wàllu di suñ borom binde mooy bu li ma la waxoon sànq xat an akmaru wala xalxan xan ci jikko ak ci mbind leneen li mooy ni nga xamante ni moom la meloon sallallahu taala bi muy jug di sant suñ borom da koo sant ca la ko neex sant ko ca nam ko neexee léegi nag ñi nga xam ne ñooy wax wala keneen kuy def leneen lu wuute li sëñ bi woote ndax loolu am na lislaam moo sant julli ñi ñu julli sant julli ñi ñu woor te leen sàngara tey leen nangam mais nag am na ay jullit ñoo xam ne ñu ngi def safaan wa hmm. loolu est-ce que ci lislaam la mooy kay def loolu la moom la ñuy joxoñ baaraam waaye du koy santaane kon sëñ bi su wootee ak cant képp koo xam ni dugal nga loo xam ni safaan bala kooku yow la waaye du sëñ Tuubaa ndax nag moom tamit wax nañu ni ñuy sante ta'zimuhu bi sunna yaquduna lil janna kon moom léppam lu leer nañ la kon kooku li ma koy tontu mooy ku déggul arxuraan la li ma koy tontu mooy ku weddi arxuraan la li ma koy tontu mooy ki xamul Seydina Muhammad salaa salaam kooku li ma koy sant mooy mu tuub te dem jàngi est-ce koy sant mu tuub te dem jéem a xam jërëjëf si Amadou Bamba Seck loolu day am na solo lool euh, leeral yi nga xam ne andi ko ci cant waaye dafa tegu ci cadre xam jële ko ci saydul wujud muy sangub sang yi di sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy royukaayam Serigne Touba ndax Serigne Touba gis naa benn bayit buy wax ne shakirtu fi xamri mahabatan nabi fala azal fi sana bi muddabi maanaam yeneen ti bu doon géej la Serigne Touba nee na dama cee lab ci bëgg gi ma ko bëgg te ki lab ci géej maqan bi mu toll ki sëpp baaram aggu fa bi man bi obbihi nasiitu layla wa sahaban wa fidatan wa xayla sëñ tubaa bëgg yonent bi salaay salaam moo tax xàmmewul guddi ak bëccëg bëgg yonent bee tax bëggul xaalis bëggul wurus xolam lenn rek moo na ca toq te teg ca mooy as sayyiduna muhammad salaay salaam yaakaari jàmm ma mahabatel muxtaaru seydina alina wal alina wal awlaadi wa waaw nga xam ne Sëñ Tuubaa dafa dem ba jël boppam tayle ko ci yonent bi sallallaahu alayhi loolu nekk na lu am am solo Serigne uh, Ahmadou Bamba Seck waaye Serigne Dame Gueye dafay mel ne yaa ngi woon ci laaj wu neex wu doy waar muy làcc tukki géej dafa mel ne saa si temme fi nga bàyyi woon ñu ngi woon ci ndar te ndar histoire bu am solo la ci yoonu murit lu bëree bëri xew fa am ci xasida yi loo xam ne fa la ko tàmbalee taalif bokk na ci asiru ma labraar ina asiru wa sannal ida ani onaaka asiru ak yeneen ak yeneen waaye dafay mel ne it foofa wa isyam kur bi kat lazina kafaro li yusbitooka aw yaxtulooka aw yaxrujooko wayam kor wayam ko la xeer makirin dafa mel ne loolu it foofee la xew woon ca ndar ngir xalaat yu tubaab yi amoon sëñ Tuubaa ñetti xalaat yooyu nga xam ne amoon nañ ko ci moom mu dëppoo ak xalaat yan amoon ci Yonent bi waaye lan mujje moo ñu génn ko kon Serigne Ahmed Dame nga wéyal foofu rek incha allah. jërëjëf Serigne Ahmadou Bamba Seck ci leeral bu am solo boobu nga defaat léegi mel ne Serigne bi moom dara mus koo ñor pour la koy fonk gi fonkoon yàlla moo tax lu ko yàlla joxoñ loola rekk lay gis. moo tax ba ko yàlla tegtalee rasulillahi dallan yallahu ala muhammadin waxaadani muhammadin li samadi googe ba ko yàlla xasee joxañ rek la amatul genn gis gu du rasul lii mm-hmm. moo tax mahat mahabat ye googee mu waxoon am na ñaari naar yu ko mës liir daal ne lii de danañ dem xool ko ci moom ba xam jamono neex mu koy wax wala lu dëggu ci moom est-ce que booba comme nii nga ko waxee dañoo waaj poudre suukar ak kaani bi ñëwee ziyaari sëñ bi njaareem ne ko dañ laa bëgg barkeeloo ci yonent bi salaay salaam eh, warga la ci sunu loxo sëriñ bi jox leen ca ndigal ñu koy warga kaas bu njëkk ba ñu jël def ca kaan yi ba bët sax mënu koo xool ñu yox ko sëriñ bi sëriñ bi naan ko beneen ba ñëw ñu suukar ko ba ba mu mel noo xam ne nit mënu koo jëfandee ñu jox ko sëriñ bi naan ko ñoom ñu yéemuwaat ci sëñ bi ngir gis nañ ne ñaar yëpp sëñ bi bi koy naan gisut nit buy naan lu weex dañ luñ ko xam ci kanamam buy naan loo loo xam ne niixut tamit dana ko xam ci kanamam waaye gisuñu changement boobu ci kanam bi sëñ bi yéem leen loola tax nag ñu ko doon wax ne ko lii nga doon wax dañu doon xool firnde waaye amu am nañ ci firnde gu wér ping sëriñ bi ne leen bëgg gi ma bëgg yonent bi moo ma yóbbu xàmmeetuma cafka mooy loolu ñuy wax al ihsaas nga xam ne doomu aadama ku ci nekk am nga ko mooy dara bu la daloon tey boo jóge woonoo xal lay daw ca sam xel vitesse bay daw ngir xamal ne xal nga joggi joxaat la répond la teggil sa tànk Sëñ Tuubaa nee na loolu nit di am di ko yëg man amatuma ko moo tax yenant bi rek lay yëg ak saa looloo waral laajoon nañ ko ne ko bañ la booleeg nag wa ndax tiitoon nga mu ne man Ahmadu dey maay ko xam ne lu tàbbi sama xel lu dut yàlla ma al ko oh, nga xam ne kon sëriñ bi amut lenn loo xam ne daana tàbbi cim xelam foofu nga wax nag ndar googu lu rëy dafaa xew ndax liñ war a xam mooy sëriñ bi bi mu ñëwee 83 marabu la fa fekk. kon bu doon ci yoon sëriñ bi numéro 84 la war a doon. waaye am na ñett ñu jot a signé bañ siñe seen signé dëppoo wut ak la tubaab bi bëggoon ñooñu ay jàmbaar lañ lañ signé dëppoo wut dañ leen a boole gaynde ga gaynde ga jëfandikoo leen. sëriñ bi tamit wax na ne ba mu signé loole mu signé tubaab bi bu mës am lu ko neex ci man bis boobee la ko am. ndax nee na biñ may tàbbal ci biir jardin ndase bi nee na biñ may tàbbal yéen yàlla saa borom daf maa xamal ne ma sa jëwrin rasulillahi ma nga gëj a gis ca jeewal moo la war gunge ci biir jardin bi ga dugg nee na biñ may puus si dugg maa ngi fuddatu ngir bañ a dugg tubaab bi jël njool dam naan daa di reetaan tàppante jàpp ne damaa gis lu ma ragal ñu ne maa ràbb bi doon dëgëru fi te ko wane njàmbar gis na lum rabal muy gaynde gi nee na sëñ bi nekk ndeko yoo lañ yaakaar ak la am wuute na ndax man yàlla saa borom moo ma xamal ne ma rasulilahi sa jëwrin moo la war a gunge ci biir néeg bi te bëgguma koo jiitu ci ay teggin ma doon xaar mu jiitu ma nee na bi ma puusoo rasulilahi ñëw ne ma ahmadu ma ne ko mbàkke mu teg ma loxoom ne ma bismillahi ma tabbi ci biir nee na boobee lu nekke xew na fa ba gaynde ga na mu amee gaynde ga tubaab bi sax mujj na ci am problème ndax dañ koo luye woon te bañ ko delloo dañ ne leen ñun bañ leen di luye gaynde lañ leen di luye te ba ñuy dellu am xar ngeen ñu delloo si ba am yu rëy loola tamit mbir xew na ci biir muy la xewoon yonente bi sallallahu alayhi mooy noon ya bañ koo jàppee ñenn ñi xalaat ne nañ ko génne ñii ne xalaat ne nañ ko rey ñii ne xalaat ne nañ leen ko tëj loola ba mu amee tamit yonente bi sun borom daf ne ko la xewoon ca sa sang ba moo xew ci gaa yi waaye dama bëgg nga xool yow Ahmadu ban moo la ci sopp ñu defal la ko nee na dama ne yàlla wan ma buñ ma dee rey lan laay amee ci rey gi nee na yàlla wan ma ko ma ne ko wan ma ci buñ ma dee tëj lan laay am ci fay gi nee na yàlla wan ma ko nee na ma ne ko wan ma buñ ma dee génne lu may am ci fay gi nee na yàlla wan ma ko ma xool génne gi ëpp pay fuuf ma taamu génne gi moo tax saa borom ci siinum xel la ëpp d'accord ci ne nañ ko génne ndax ñeneen nañ ko rey dañ ne amuñu ay la jenn juy waral ñu mën koo rey ndax amuñu jenn firnde joo xam ne war nañoo may ñu mën a rey sëñ bi nañ ko tëj ñu buñ ko tëjee tamit fuñ ko mën di te taalibeem yi nañ ko fi fekk te bu boobaa tamit liñ bëgg ci moom duñ sotti nañ leen ko génne buñ ko génnee taalibe yi duñ fa mën a jote loolaa waraloon suñ borom soppi ci seeni xel ne nañ ko génne waaye li gën a yéeme mooy sëriñ bi la diir bi mu nekk ndar weeru safar fa la ko def ba weeru gàmmu ba gàmmu ngay bëgg a jeex lañ ko yóbbu ndakaaru loolu ba mu koy wax sëñ Maxtaar Silla daf ne ko Maxtaar mu ne ko Mbàkke mu ne ko man Ahmadu de ku ma xam-xam ma ci njàmbaar bu ma nee metti na rek metti na isa sakartu zalika al mabita wa zalika al amina wa sabuta taarat ila al jihati bil armaahi nee na sama xel du ma yóbbu ci lu loolu jël sama ngànnaay waaye wa sabahat nafsi anil mahi nee na sama soppe ba moo may dalalaat defal ma nee na ndakaaru googee bañ ma yóbbee ndax tubaab bi ba tey li ma la waxoon rek li mu bëggoon ci sëriñ bi mooy mu weddi yàlla baa mu sàkkal ko pexe waaye sëriñ bi fu mu mën di nekk di wax ne allahu rabbi wala ushirku bihi nee na biñ may tabbal ci néeg boobee ca ndakaaru nee na ta néeg boobee xataay ga lenn xaju fa woon lu dul sama jëmm ji la booba sëriñ bi 33 kilos lay posé ngir tuuti waayu jëmm ji nee na biñ may tabbal ci biir ak bumax lañ ma tabbalee nee na bi ma tabbee tànkum ndeyjoor bi ma njëkk a tabbal moo ma wan ne ci ràbb la ndax bi ma ko tegee daa am lu jam ba sarma làmb muy ak nee na tëxut ma yeexal ba ca ginnaaw dama koo gaawal nee na mboolem lu di ak tooke def nañ ko ci biir ay xotti biteel yu nu tooke ngir fu mu jam du génn mboolem lu ay ginnaaw kër def nañ ko ci ngir ak xat gu bon ngir mën sëriñ bi nee na yàllaa ma fa fekkaat ci biir xat googe googee ak tartar yi ne ma ahmadu ma ne ko mbàkke mu ne ma ndakamu ma ne ko alhamdulillah nee na yàlla ne ma dama bëgg nga jàngal ma alxuraan ne ko nag dama bëgg alquran jang ma doon jàngal daaru xudóos say taalibe wër la ngay naan sa kafe dama bëgg nga jàngal ma fii alquran ñaari alquran yi su ma leen xammee danaa la folli danaa la génne sama nguur gi ahmadou doo doo bokkati nee na ma tàmbali alhamdulillahi rabbil alamin ba ni ma jàngee alif lam mim zalikal kitab nee na ba bi may dugg maida la ma yàlla ne ma xef taxawal ahmadou yaay jàmbaar nee na booba laa njëkk dégg yàlla ne ma ahmadou yaay jàmbaar te booba maa ngi ndakaaru demaguma gabo te xel yëpp daa d'accord ci ne damay génn nee na ci biir foofee yàlla daa yebal ne ma Ahmadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma sa soppe ba sa xarit ba de da laa bëgg a gis nee na ma recevoir ko ci néeg boobee nee na ci la yàlla ubbee néeg ba néeg ba yaatu ma mën faa jaamu yàlla ba ba xemmem néeg boobee ba bëggatuma ko génn te mooy néeg boobee ñu ko tàbbaloon sëñ Moussa Ka ba mu koy wax nee na soxna jaara fekk na ko fa ñeneen ak ñeneen fekk nañ ko fa ci ay xar baax yoo xam ne defal nañ waaye teewut sëriñ bi di wax lam doon wax allahu rabbi wala ushriku bihi nee na ba tey ci natt yooyee ba mu koy nettali sëñ am sutu jaxate daf ni ko am sutu tubaab bi de ci pexe yi ma doon pexeel dañoo woo gouverneur ba nekk Gabon ne ko ñu ngi leen di indil grand bi dëgër gën a dëgër bopp ndax li lay wutal ne sëñ Tuubaa du moroomu kenn mhm. soixante-dix-neuf personnes yëpp signé wuñ euh, Ndar de Ndakaaru lañ signé te lañ signé bañ bay leen sëñ Tuubaa bu ko signé woon ñu bako mhm. la sëñ Tuubaa signé bañ téye ko gaa yooyee ku ko signé woon des est ce que. looloo lay waral li Sëñ Tuubaa signé ak la gars yi signé dañoo bokkut. moo tax mu ne ko grand marabout bi gën a dëgër bopp gën a amuk fit ñi ngi la koy yebal bu dikkee na ngeen defum pexe ngir faat ko nee na am yeer lañ ma waajal am yeer muy am pax moo xam ne mboolem luy danser am na ca. nee na pax moomee biñ ko defee man Ahmadou bi ma ñëwee ak samay bagage dañ na ma jàllal ca place bële nee na bi may dox xaw a yeexal dox bi ñu ne moom de day jàng aw fit. akuk dëgër xam na ne ci dee la jëm moo tax mu yeexal ndox bi sëriñ bi ne leen kàcc ngeen diglu ma leen rasulay sama jëwriñ lay diglu nee na bi ma rasulay joxee ndigal ma taxaw ci kaw si jaada gi nee na damaa mëbax ci biir pax mi ñu suul maasale ne c'est fini Ahmadul Xadim moom faatu na nee na ci biir pax moomee faatu ku ko du def amut waaye Sëriñ Tuubaa nee na boobee laa jël sama wàll boobee laa doyal ci adduna ba ñibbi bar sàq waaye yàlla daa xool ci deeru dunia ku ko ci ku dul man amut moo tax mu delloo siwaat ma looloo waral muy wax ni a amatani hatta daxaltu barsaqa yàlla faq na ma bi ni mu duggee barsaqa kon Sëñ Tuubaa demal na barsaqa ci biir loolee la waxoon ne mboolem ku yàlla gërëm fekk nga ma ci biir kan moom mi bëgg maa dimbali Abdul Xaadir Jeylaani dikk na def daf may dimbali ma ne ko yàllaa la yebal wala sa yërmandeeg bopp mu ne ma sama yërmandeeg bopp mu ne la yàllaa la gën a xam samay mbir te moo lay ëpp demal moom lay nik nee na ku ñëw ma wax ko loola mu dem ba mujj gi man Ahmadou Khadim damaa dégg am riir di ñëw di jàng sama xasida yi ba toll ca salla alayka bi man la ladayka musni alayka inda rimai alayka sallam deban wa karam man bii ka azam ahla timaay nee na ma ne gees muy soxna jaar ànd ak jigéen yi àjjana di jàng alxuraan eh, sama xasida yi nee na waxut ak man dafa jàpp samay mbagg sànni ma génn ci biti ni ma Ahmadou ma ne ko Mbàkke mu ne ma doxal nga liggéey ñii dañ la yàqal ba tey sëriñ bi tubaab bi mboolem luy loo xam ne day tax doomu aadama taqalikoo ko kuk ruwaam def nañ ko sëriñ ngir bëgg koo faat Ahmadou Bamba sëriñ bi jël nañ ko ba tabbal ko ci biir ak cin di ko togg ci ay natt mm. tugal ko ci biir ak cin nee na benn tubaab moo ñëw neleen leen grand marabout bi ay dossier mi ñuy bëgg a sonal damaa bëgg ngeen jébbal ma ko te jox ma cin lu mën a def nit dans cinq minute ma faat ko ñu jàll ci leneen sëriñ bi nee na kaw ga kaw diir ga dongu leer ga rek ñett ñu am lef ñoo koy jàpp kawdiir mooy cin la dongu leer mooy kubéer ga sëriñ bi daawul wax baatu français nee na cin la rëyaay gim rëy kubéer gi koy ub ñetti waxambaane yu am kàttan ñoo jàppoo ngir àttal kubéer gi nee na cin loolu lañ jël def ci ndox xam bu ko ba muy bax ñu woo ma ma ñëw ñu ne ma tàbbil ci biir daan ne ko maxtaar mu ne ko mbàkke mu ne ko tubaab bi luñ ma mës a wax danaa ko def lu dul ak mooy yàlla ndax maa ko jaayante nee na ma dugg ci biir cin li ñu jël kubéer gu diis googee tëj ci jël lu diis teg ci ngir jàpp ne danaa def pexe génn nee na ma nekk ci biir cilli ñuy xambu cilli cilli bax sun borom fekkaat ma fa ne ma pëkk pëkk ahmadu ma ne ko mbàkke mu ne ma ndakamu ma ne ko alhamdulillah est-ce nee na yàlla ne ma damaa bëgg nga tagg ma ci yaa rahmaanu yaa rahim ma tàmbali rabbi bi maa yasrahu l asana qad fajaa bi jeehi afdali man lil hiqat la jaa nee na bi ma yegsee ci yaa maalikal mulki yaa man jalaan xawadin nee na jibril dana fi waaf ne ma sa borom nee na arme bi pare loo wax mu def ko ci ñii de xam bu taal bi mu ne ko irham jami xawara ya hëdiyan rada sëñ ko rek ah, barakallahu sëñ daam foofu nga daaneel am na solo loolu moom moo ci dond yonent bi sallallahu alayhi wasallam saahir ak baatin ndax yonent keroog ci fatu Makka bi mu dajalee noon yi ba pare ne leen masa taraw na ani bi bikum nu ngeen gisee ne noonu laa war a jëflanteeg yéen ku ne tàmbulee wax da leen as sa bopp ant mu tulaxaa dem leen jégal naa leen ni nga ko waxee sëñ Tuubaa bi mu jekkoon noonu yi day leen abawtu anit ax dayi turan bàyyiwul kenn li wàcc man nafaam li xëy sarmadu kon kenn du si Amadou Bamba Xaadim Rasuul li ko yàlla jaraloon jëralu ko kenn loolu moo tax li ko yàlla defal kenn dootu ko ambassade yi taxaw lu waaye di yor moo la koy jox ci bureau ci sëñ daam daf cee gis da cee dama cee déggee fit ak ngor ndax fit moo ko may mu engagé lu metti loolu waaye ngor moo tax mu téye ko ndax ñaar yooyu mënul ñàkk ci jàmm bi namb suñu borom te gis naa ci mbindam mu wax ne nit ku ne ni sa diine toll noonu la san di toll kon sëñ Touba baat bi alxuraan di wax inna akramakum indallahi atqaakum moom sëñ Touba ci junj boobu la ndax ragal yàllaam ak bàyyi xel yàllaam moo tax suñu borom àggale ko foofee sëñ daam waaye ni nga ko waxee ci pax min ko dugaloon benn naaru ganaar bu ne Abdoulaye Salim ci li wax naan naaru nit ajjaja xal yub di tarixa bi illa mu najji xajlaay min naar di firndeel yon yonte yàlla Ibrahima ba nu ko sànnee ceb pax ma ba Seydina Jibril dikkee tawhid ba nga xam ne Ibrahima amoon na ko sëñ Tuubaa dafa amaat tawhid boobu kon mboolem yonent bu fi mas a jaar lépp loo am sëñ Tuubaa doon na ko ci yow ba pare yor yëfi boppam kon sëñ daam dafa mel ne foofu nga daaneele nekk na lu am solo danañ dir soit ak yow ndax maa maanaam gàmmu nga day doog a tàmbali te dafa mel ne yaa ngi yëngal gaa yi waaye damay delloo Cheikh Amadou Bamba Seck ndax lu muy wax am na solo trop Cheikh Amadou Bamba Seck ginnaaw fi sëñ daam daaneele ci wàllu sëñ Touba ak coono yi waaye coono yooyu yëpp nag mu tegoon ko ci ak sant suñu borom fu mu mën a toll li ma lay laaj mooy sant sëñ Touba ci mbindam ndax damaa gis benn xasida boo xam ne da nga koo fii yëngu léegi xëj da boobu dafa nekk xëj sant yàlla kon ndeke sëñ bi sant weesu na làmmiñam ak xolam àgg na ba ci xalimaam ci Ahmad Bamba Seck euh, jërëjëf sëñ daam ci leeral yu am solo yi waaye bala maa ñëw ci sant ci sëñ Tuubaa ci xalimaam dafa am tomb bu am solo boo xam ne da koo laal muy numéro 4 numéro kat wax ji bari na ci waaye daa am lu muy dëggal wax na ni am na ay ñu baree bari ñoo xam ne jaaroon na fi Sëriñ Tuubaa شريعتي المختار liya wadiya wa fi fuaadi min man kam sharia gii nga xam ni moom lay shariatul xaatima nga xam ni subhaanahu wa taala moo inna diina islaam yonent saasam da koo jël yàlla jël ko ñu teg ko sama loxo mu nekk sama dénkaane kon faaw mu am lu firnde loolu yonent salaa salaam bu fekkee suñ borom moo dafa ko def muy xaatimun nabiyin wa imaamil mursalin da ko indil confirmation boo ñëwee ci alxuraan baatu sharia bi nga xam ni mooy wane ni diine l'islam mooy shariatul kaamil mooy shariatul xaatima ñeenti yoon la ñëw ci alxuraan baatu sharia ñeenti yoon la ñëw ci alxuraan nga jël baatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ñeenti yoon ci alxuraan ki nga xam ne mooy nekk xaatimu nabiyin nekk numéro 4 loolu confirmation la mooy su fekkee yonent salaa salaam turam dafa ñëw ñeenti yoon ci baatu sharia ñëw ñeenti yoon ci alxuraan kooku borom xam-xam yi dañ ni li indi sabab boobu mooy day firneel ni kii moo tëj sharia yëpp ndax ci biir alxuraan am na lu ñu tuddee al ijaaz al adadi maanaam ay baat da ciy ñëw ci alxuraan di répété wu yooyu mi répété wu du hasard boo jëlee baatu ayyaam mu nga xam ne mi ngi firi ñëw na ci alxuraan 365 fois te booy jël limu bi si 365 jours la nga jël baatu xamar ñëw na fukki yoon ak ñaar nga xam ni weer lay firi booy wàññi weer yi nga xam ne moo am ci at mi fukk ñaar la nga jël baatu rusul rusul li mu ñëw ci alxuraan dafay dëppoog baatu rahma bi nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa taala day wane yërmande gi nga jël baatu rijal mu ñëw 14 baatu nisa ñëw 14 nga jël baatu iblis mu ñëw 11 nga ñëw baatu istighfar mu ñëw 11 nga jël Mouhamed mu doon 4 nga jël Serigne Touba mu doon numéro 4. est-ce que kon loolu dafay wane ni moom dafa doon Seydina Mouhamed sallallahu taala alayhi wa sallam waaye bu ñuy ñëw ci Serigne Touba ci cant sëriñ Touba léppam da koo joxe subhanahu wa taala waaye cant gi ko neex. cant gi ko gën a neex li tax mu def ko mooy li ko suñ borom may chakartuhu is xassani bi xidmatil maaxisani maa ngi koy sant cant neex ci man gën a neex lan moo tax mooy daa am la ma jagleel lan la ma jagleel mooy ma nekk xaadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye li ci gën a neex mooy sàkkuwu ma ko de sàkkuwu ko de yow di salaa moo ko xool liggéey bi muy liggéey rafet mu ni raama rasulillahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdullahi muy ñaari grade yu mag nekk xadimu rasul mais nekk abdullah sàkkuwu ko suñ boroom moo ko jox takkal ko grade mu koy cant kon xeetu cant yooyu yëpp moo ko gën a neex di ko cant di ko cant ba koy kàll cant gi mu koy kàll di kàll cant gi moo tax mu ni achiinu mujama walkaafu warraau lirraai walbaai wa huwa albaau warraau muy xas dëgg yéeme mu ni achiinu moo ajama jëlal chiinu nga xam ne mooy chiinu shukru nga boole ci kaaf muy kaafu shukru nga boole ci raa muy raa u shukru muy ashukru lil lan mu ni li raa i wal baa i li rab kooku nag mooy kan mu ni ko huwal baa u war raa u huwal barru kon nag mu ni raa an wa baa an raa ak baa soo ko boolee mu jox la rabb mu ni lahu maqlubuhu boo ko jëlee nga inversé ko mu jox la albarru jox naa ko suñ boroom walahu alxaau walbaau war bi ihmaali war kon boo jëlee xaa ak baa ak raa jox la bahr kon nag maa ngi sant kan rabbul barri wal bahri moom doo ko sant boo koy sant ci kàll kàll di kàll maam jël baatu arab di ko kàll chiina mojama wal kaafu war raau lil baai war wa huwa al baau war raau moo tax ca biir xasida gi mi ngi naan faltatta in nazaran wal taqul yaa man yara luxas yi yow mi ngi dégg sama cax kon day cax suñu borom di ko kàll di ko sant di ko sant di ko kàll ci façon sant bu nekk sëñ Dame ah barakallahu fiika jërëjëf si Ahmad Dame sëñ Tuubaa ba aljana nii mu neexe tey noonu lay neexe ba aljana ndax bisam bii nga xam ne ñu ngi koy màggal muy 18 safar yàlla suñu borom moo ne ko maa la bind maa bind weer maa bind ay fan waaye sa bis bii nga xam ne mooy 18 safar ëllëg yowmal xiyaam bu 18 safar ak seetee ci aljana xéewal yëpp day yokk mbugal yi sax day wàññu kon sëñ Tuubaa li wax ne saa nafin bi laa dararin day weesu adduna ba ajjana ëllëg loolu mooy xew waaye da wax lu am solo ci nim nekk numéro 4 nekk Abdullahi wa Xaadim Rasul dana bi ma wana an misli kullu xadim ñëpp lot nañ ci nekk Xaadim Rasul comme ni ko nekkee ndax dafa am ku ñuy wax Anas dafa nekkoon Xaadim Rasul waaye nekk gi mu nekk xaadim rasul ak nekk gi sëñ tubaa nekk xaadim rasul bokkul ndax nekk gi sëñ tubaa nekk xaadim rasul raama rasulillahi min ilahi kaw ni xaadimu abdalahi yonent bee ko gis am mbayam set ci tool bi mu ne ko kaay ma def la jëwrin nga yor tool bi kon bokkul ak ki nga xam ne dafa ñëw di liggéey ñu di ko fay kooku xam nga lu ko may loolu waaw dafa am lu ñu tuddee alaamatil muhibbin mm-hmm. ibnu jawzil hindi bind ko mm-hmm. muy képp koo xam ne da ngaa sopp nit wala képp koo xam ne da ngaa sopp dara am na ay mandarga yoo xam ne dafay feeñ ci yow Serigne Touba bi mu ne dafa sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa feeñ ci moom yonent bi dafa ànd ak Omar ibn Khattab ñuy dox ñoom ñaar mu téye ci loxo bi bi mu téewee ci loxo bi Omar bég kontaan ci lool ci geste boobu yonent sallallahu alayhi def muy wax ci xelam ni ay yonent bi ba xamoon ni ma ko bëggee ni ma ko bëggee ay su xamoon yonent bi suñ borom mayoon na ko muy xam li nit ñiy wax ci suuf mu ni ko niibtee ni ko Omar ndax maa la gënal sa njaboot mu ne ko waaw ya rasulallah mu ne ko ndax maa la gënal sa alal mu ne ko waaw ya rasulallah mu ne ko ndax maa la gënal sa bopp Omar ni tek ni ko déedéet ndax daa dëgg woon ni ko déedéet yonent bi salaa génn ni ko téye ko bu baax ngëb ko ni ko wallahi laa yakmulu imaanaka xatta akoona ahabu ilayka min nafsika wa min malika wa naas ajmain ni ko sa yàlla du mat mukk mukk lu dul dama laa gënal lépp lu yàlla bind ci kaw suuf tiit dugg ci biir néeg bi génnaat ak njàmbaaram nga teewaat ci loxoom bu sell ba ni ko wallahi anta ya rasulallahu ahabu ilayya min nafsi wa min naas ajmain yaa gënal ñëpp waaye xam nga fan la wute Sëriñ Tuubaa moom xaarul ko ko moom moo jugal waxal boppam ni mahab mahabati al muxtaari sayidina xubbil maganiya wal ahli wal da dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu da koo joxe mu nekk addiye kon loolu la rawe gaa yëpp sëñ dam <laughs> ah sëñ Bamba leeral boobu am na solo trop leeral boobu nga leeral am na solo trop ci diggante sëñ Tuubaa ak yonent bi waaye ci xaadimu rasul boobu nga wax léegi Abdoulaye wax xaadimu rasul raama rasul lay mi ilay kaw ni xadim léegi dafa nekk jaamub yàlla suñu borom nangu ne ab jaamam nga nga wëlbatiku yonent bi nangu ne yaay jëwriñ ci tool bi kon mbooleem li yàlla doon joxe lu baax sëñ Tuubaa dajale na ko te dafa am benn hadis bu yonent bi doon junj addis boobu dara gënu cee leer Serigne Touba te mooy jubluwaay bi yonent bi waxoon muy waditu law laqitu ixwaan yi ba ko Omar ko aw las naa ixwaanaka mu ne ko xaw mun na fi axiri samaan amano bii walam yaraw nii ak a neexoon ma dajeeg mbooloo ma may liggéeyal te ma am cib xarit Seydina Omar ne ko sa ban xarit ngay wax mu ne ko kooka day mujjug jamono lay ñëw waaye kenn lay doon dana wecc juróom-ñaar fukk ci yéen Seydina Omar ne ko xanaa juróom-ñaar fukk ci mu jamono mu ne ko déedéet juróom-ñaar ci yéen ñii kon xoolal saxaaba yi nga xam ne danoo tuur seen deret ngir jaamu yàlla taxawal diine alxuraan tàgg leen la xad radiyallahu anil mu'minin isu bàyyi na ko taata sa sëñ Tuubaa ñëw ne bàyyatoo fil bahri taxta sajara wal bahru musbidun wa awli fajara daal di yamu cere bàyyatoo fil barri taxta sajara wal barru musbidun wa awli barara kon dafa mel ne la yàlla yoroon lépp buub na ko xëppal ko sëñ Tuubaa ba képp ku bëgg ngëneel ci moom ngay ñëw kon sëñ daam wax ji neex na lool dama lay bàyyi nga yëngalaat gars yi laata ñuy tàggatoo ndax buñ fi fanaanoon di wax tamit day mel ne day gën a neex rek jërëjëf eh, Serigne Ahmadou Bamba ci leeral gi nga leeral numéro 4 xam nga da wax ne Muhammad ñeenti yoon la ñëw ci alxuraan Muhammadu rasulullah wa ma Muhammad ma kaana Muhammad bi ma nuzila ala Muhammad Sëñ bi muy dem ci géej gi ñeenti Muhammadu la am Muhammadul Amin Muhammadul Mustafa muhammadul bashir muhammadu di ñeenti baat muy ahmadu te sëriñ bi bi muy taalif xasida ak sindiidi ca naawel sun borom def ne ko woon ahmadu mu ne ko mbàkke mu ne ko xasida gii ngay bëgg a taalif koo ci tuddu turam danaa la jox maqaamaam jox la wilaayaam jox la darajaam Sëriñ Tuubaa bëtam jël ñëpp mu dem ca yàlla ni yàllaahu yàlla lam ko waxoon inna wa'daka sidq te moo ko ko digoon yàllaahu yàlla far sotteeku ci jëmmam moo tax mu ko doon wax naan ko bul ma waxati lenn lu dul yaa jaari te bu fekkee yàlla nekk ci moom kon te baatub allahu yàllaahu la wax allahu ñeenti baat la alif laam laam hal saqeer kon numéro 4 moom ni nga ko waxee li koy firndeel daa bari waaye ngir ci tënk rek mboolem natt yooyu yëpp ñu tegoon sëriñ bi nattu day jeex waaye màgga eh, safar gi weeru safar lu jiitu Sëñ safar arab da koo gaafaloon duñ ci takkub sëy duñ ci def benn ibadat goo xam ne aada la duñ ko ci def ndax dañ koo gaafaloon ni nga xamee ne noonu lañ gaafale woon talaata waaye Sëñ da koo laal mu barke waaye li gën a yéeme mooy weeru safar du weeru murid yi weeru jullit ñi la Sëñ Tuubaa nee na damaa fekk lislaam ju ñu tënku ko jullit ñu ñu tënk leen al alquran ñu tënk ko ju eh, jàkka yi ñu tënk leen lépp lu jëm ci yàlla dañ koo tënk ko sariyaan ni ñu ko waxee dañ koo tënkoon waaye Sëñ Tuubaa nee na dikk xat ca dëgg-dëgg fakka dajjiku na kap laa jingi ñu ne borom Tuuba lu xew mu ne xat ca dëgg-dëgg bassa yuliku na ñu ne ko lu yuliku mu ne fadlaa ngëneel ngeneel gi nga xam ne moom la sun borom doon wax ne walaw laa fadlullahi wa rahmati la kuntu min alxaasirin bu doon toon ngëneelug yàlla ak yërmandeg yàlla yéen ñëpp ci perte nga ngeen nekk Sëñ Tuuba nee na xat ca dëgg-dëgg bassa yuliku na fadlaa ngëneel ñu ne borom Tuuba lu xew mu ne fa ca saase immédiatement adduru walla lor daa di dem ne amatuma place ci kër sëñ ndax la ma la ma doon def man lor sëñ Tuubaa dindi na ko fi lor jeex na bis ni ko tey bi mu wanee ginnaaw di dem fa ca saase immédiatement an na fo ne ko foo wane ginnaaw ma ñëw sampa jee yii daa di ñëw ta na fa mooy borom Tuubaa parce kon la daaj ji jéngi ña andi ngëneel loola suñ Tuuba yemalewu ko ci ak njabootam waaye képp ko nam ma yegg ci yàlla la koo xam ne yaa ngi wax a an laa ilaaha suñ Tuuba jina la ngor goo ko mën ta fay ci nattoom yooyu nag sun borom daf ko waxoon ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke ndax 1918 ñu bari dañuy wax ne màggal gi ay 123e màggal la ak 140 nangama màggalu ren gii 2018 mooy centième mu màggal nañ ko xam suñ Tuuba tàmbaliwut a màggal ba mu génnee déedéet ba mu ñëwee ba nattu yi jeex la tàmbalee màggal 1918 ndax yonent bi nee na ko woon sun borom da dimbalee na ma danaa la wax nattu boo war ñëw danaa la ko wax te Sëñ Tuubaa yàlla def ne ko natt yi ni ma la koy teg midi bu ma la tegeem nattu saako ciment deux heures dama lay teg ñaari saako ciment quinze heures dama lay teg ñeenti saako ciment dix-huit dama lay teg huit saako ciment nga xam ne sun borom nattu bu mu mës a teg Sëñ Tuubaa bu waxtu wa del see la koy fois deux Sëñ nag bu safar mës a jug da daan gàttandu ji nattu yi gasadu ji nattu yi dugg xaar nattu yi ñëw mu jéem a xool nu mu dundee ak ndax ci biir géej gi sun borom wax na ko ne géej gi fukki wee at nga ci waroon a def waaye sañ njàmbaar yow Ahmadou Khadim lu ma a teg ci bis ne la balaa bis bee jot na nga ko matal tàkkusaan danga ca noppi lu ma la teg ci at mi balaa mat deux mois nga matal ko lu ma la teg ci weer yi balaa mat dix jours nga matal looloo waral nattu yi jeex ta temps bi jeexut looloo waral mu ne ko yi danaa ko bu ci nekkum at nga dem ko gànnaar mboolem lañ fa doon jëriñu yëpp nga jël ko buub yóbbu ba ñoom ñëw di ko jël si siwaat moo tax màggal yi ngay gis naar yi di bàyyi ko fu ci nekk di ñëw di laajte addiyee sérif mooy la fa doon njëriñ moo tax sëñ sëñ mbay jaxate na koon mbooleem lu dul as fu as njëriñ ma sa nekk ak barke xëy na fa jug ay xotta des fépp la ko wax nag ay xotta des fépp Cheikh Bamba yaa di ngañaay loolee nag 1918 bi mu jotee sëñ Tuubaa di xaaraat na tuy daa xaar mel ne nattu yi daa tardé ci la ko rasulee ñëwee ne ko sa borom nee na baaru nattu ngay xaar mu ne ko waaw mu ne ko nee na bis ni ki tey nattu yi jeex na bis ni ki tey nattu yi jeex na daan ko sa borom nee na nga jug dugg ca néeg bële muy bayti rasul sëñ Tuubaa nee na bi ma duggee sun borom wan ma xéewal goo xam ne adduna ak àllaaxira bu ma ko doon jëfandikoo du fi jeex nee na ma ne yàlla lii lan la mu ne ma lii de ak pay la lii de ak pay la te moom bisu tay bi daan ko ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko doo ma ëpp jom doo ma ëpp fulla doo ma ëpp ngor lu ma la mas teg jox ko ma yàlla man war ga ca wàcc ga ca war lu ma la mas a wax balaa bis bee mat balaa ñaari waxtu matal nga ko ndax Sëñ Tuubaa yàlla da ko daan teg pression ndax daawu ko bàyyi ci teew nattam lu ci mel ne nooru daare ni bu ko daan bindloo danaan ko bindal ma nooru daare ni dans vingt cinq minutes nga may bindal bu ëppee benn cerse danaa la folli danaa la génn ci sama ngóor gi te sëñ da daan yëkkati xalimaam bi bind ba pare yàlla yabal ak weñ ci xalima gi muy naan te sëñ Tuubaa sañu koo dàq ndax day naan sañu koo dàq te loolu lépp du ko bokk ci temps bi te sëñ day matal lool moo tax lu ko yàlla mës a ci ay waxtu def na ko ci ay minute loola waral yàlla ne ko dooma ëpp ngor te natt yi fois deux laa la ko daan teg naa la xamal ne yow Ahmadou Khadim bis ni ki tey nattu jeex na xéewal a des te xéewal yi na ma la doon tegee nattu yi laa la koy tegee xéewal gu ci nekk bu ma la ko tegee bu déwén jotee dama lay teg ñaari bu déwén jotee déwén jéeg jotee ma tegaat la ñaaram bu déwén jéeg tegaatee ma tegal la ñaaram yàlla day fois ak deux ak Sëñ ba moo waral màggal gi saa bu ñu waxee ñu ne màggalug ren moo dàqugug daaw noonu la yàlla y defee ak Sëñ Tuubaa loola nag la Sëñ Tuubaa tàmbalee sant boroma muy 1918 def na ko 4 ans wala trois ans def na ko di et trois ans la ko def cent 1921 jot muy soog di want woote kaay leen ngeen sant le ma yàlla daal wane méthode bi koy def mooy ganaar ba ci gileem wax nañ ki njëkk jëf ci màggal ginnaaw Sëñ Tuubaa ndax aw bëy la ko fekkele boobee mu weccili ko am xar rendi ko saam ko bernde ki njëkk jëf ci màggal mooy sëñ Saliou ndax daa fekkoon nijaayam sëñ eh, mbake Jaxate mayoon ko am xar ab gàtt mu nekk kër sëñ am sëtu jaxate bi mu déggee ndigalu sëñ Tuubaa gi moom sëñ Saliou fekk mi ngi woon fii Touba ci kër sëriñ Alsaan jaxate di jàng la wax ne ku baax ki de dégg naa daa wooteeg sañ sama xar moome nañ ma jox ñu defal ko ko ca nga xam ne sëñ Saliou moo njëkk a jëf ci màggal gi moo tax moom rek a xam dayob màggal ndax cant gi nga doon wax léegi sëñ Saliou daa wax ne cant feeg demut ba niroo ko ndamu cant ga dees na hmm? daa di waxaat ne màggal gii feeg ñu bañ ne màggal gi jeex na ñam yi ñu koy bett ci mbedd yi muy mel ne ay naafi gerte màggalagul kon loolu day tontu ndaw soosu fi ñëwoon barki démb naan jigéen ñi dañuy yàq màggalug Sëñ Tuubaa dañoo dépassé foofu mhm. sëñ seen yi daa wax ni feeg di muñu ba desiti lekk yi di mel ne ay naafi gerte booba màggalagun kon nun nan xam ne dese na noo màggal ba tey màggalagun mhm. kon loola lu war a ñëw la lu war a ñëw la ci kanam la mhm. kon loolu la Sëñ Tuubaa di sant kon màggalu ren gi mooy centième mu màggal ci ay mu Muntaxa yàlla na fi yàgg loolu te ànd ko guur amiin di soixante onzième bi ko sëñ Fallu wootee Touba ndax loolu danaa ci indi ak leer ndax sëñ tubaa bi muy joxe màggal gi daf ne fu waay nekk nag ma santale yàlla daan ne koo xam ne sama mbég sa mbiga ba bis bi ñëwatee nag ma ci sant la yàlla bul ci xeeb ganaar ba ne mëtu yooyu def bul ci yéem gëléem ba ëppale ko sama bis bi ca la waxee woon waxam juree joojee daan ne képp koo xam ne yàlla may na la ñaari gàtt bu tabaski ñëwee nag ma benn mi bu dencal ma beneen ba sama màggal gi daan ne koo xam ne yàlla benn rekk la la cëral nañ ci jëlal tabaski xaaree ko sama màggal gi te yéen kat li leen yàlla di defal man la leen booleel te loolu yàlla ko wax yad'u kulla unaasin bi imaamihim ñun nag yàlla Sëñ Tuubaa mooy sunu imaam yàlla ci moom lanuy ñuy kon loolu daa war a leer moo tax Sëñ li gën ci yéen yàlla ci man la ko def kon loola dañ cee war a gën a diggewaat mbir moomee waaye nag sëriñ bi bi mu fi bàyyi koo sëñ Mourou Moussa nekk fi mag ñu bari dañoo demoon tasaaroo sëñ Mourou Moussa njàmbaar la ndax moo rassemblé waat yoon wi mag ñu bari jaayante waat ku ci mel ne sëñ Baye Jaxate gis nañ ñim taqe woon ak sëñ waaye dane woon ku ko mat sëriñ amatut ware ginnaaw sëñ Moussa Ka ko delloo si waat sëñ Moussa Ka ko fekk fa mu nekk ne ko Ababacar Jaxate Ababacar Jaxatoo Ababacar Jaxatil gaalu gëneel gi nga war boo joowut jaxatoo booy teeri doo ami ndam ci la waral mu ñëwaat ci moom ne ko sëñ Mour saa sama lépp a ngi sama ñëpp a ngi ñëw naa fi yow man ñëpp noonu lañ ko defee woon waaye sëñ Mour bi fi sëñ Tuubaa jugee daa patt benn bët bi nekk ko jaral xoole benn ñaari bët amatul ci kaw suuf ni nga xamee ne noonu la maam defoon maam Thierno Ibra Fati bi ne ku ko jaral salaamaaleykum amatul man Ibra Fati moom waaleykum salaam rek waaye dootuma kenn waa salaamaaleykum sëñ Mur Jaw Paxa daa pattoon benn bët bi ne sëñ Tuubaa nekkatu fi ku koy jaral xool ñaari bët amatu fi sëñ Fallu bi mu fi toogee di sëñ Tuubaa la dem siyaare ji ko ne ko bët bi lu ci nekk mu ne ko dara seetlaw ku ma jaral xoole ñaari bët dafee nekkatut ndax sëñ Tuubaa ni eh, si borom Tuubaa nekkatu fi mu ne ko ndax gëm nga ne man fallu aw bu samaay borom Tuubaa mu ne ko bala ma koo gëm da ngaa woote màggal gi Tuubaa Serigne Fallu daal di woote màggal gi Tuubaa 1946 ñu baree ngi coonaan 1940 1946 màggal gi sëñ Tuubaa sëñ Fallu njëkk a def ci Tuubaa la woote Tuubaa te boobaa tamit sëñ Fallu daa xalaatoon lii lépp mm-hmm. tey buñ bàyyi woon ku ci nekk màggal fu ci nekk bu boobaa màggal yi dana bari kenn ku ci nekk sa ruq danañ dem sax xëy na ba dat bi riir ñu waaye sëñ Fallu boolewaat njaboot gi dajalewaat fii ñu sant le sëñ Tuubaa boromam kon loolu mooy bisub fukki fan ak juróom-ñett ci biiru safar nga xam ne moo gën ci bis yëpp ndax sëñ Abdu daa wax ni àjjana amul bis amul waxtu amul wi waaye màggalu Tuubaa saa bu ñëwee yàlla day yokk neexaay ba yokk kilim ba yokk jongama yokk lépp luñ fay xéewaloo ba bu ko defee ña fa nekk dañ naan waaw lu xew tey ba lii am yàlla naan leen da ngeen a xamu ne tey la woon màggaluk Touba kon màggaluk Touba mooy wax waa àjjana date bi ne at mi dellu si na wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. baarakallahu fi nga jërëjëf Serigne Dame Gueye kon dafay mel ne ah, li ñu amoon ci waxtu jeex na ñu ngi ñuy xamal ne waxtu bi jeex na waaye ni ko waxee léegi ci si Amadou Diaw Paxa. biñ ko laajee kan mooy sëñ Tuubaa dane wasaaka jaarullahi in kuntu saayila rafiqun lil mamduudi bin nooni war nañ wasaaka lesi qad jaa wa diinu maytun fa ayaawu saxsal fi amakini machia kon dafa mel loolu am na solo lool ci Amadou Bamba Seck njox la nga tàggatoo euh, sëñ Tuubaa jàngkat bi mu jege si ñu dugal ko mu barkeelu yu béyit ñu doog a wéyal ak liggéey bi ci beneen plateau incha allah si Amadou Bamba waaw ah, jërëjëf xanaa sant sëñ daam ci lu rafet li nga xam ni sëñ li nga xamante ni tey jaar na fi fi may tëjee rek mooy fi mu fi mu tëjee ci sëñ Fallou fa lay gannaaw moo sabab ñu ñëpp ñu mën a dajaloo fii ci xéewal gi Cheikh Mouhamadou Fadal sama maam bi jur sama wayjuru góor dafa bind ci moom benn way tënkee ko turam Mouhamadou Fadal al Mbakki ñu ne ko Cheikh Mouhamadou Mokhtar way wi doo ko yóbbul sëñ Fallou ndax neex na moo ne leen gannaaw lu nit wax fii ci àdduna ëllëg yowmal xiyaam dina ko wax su may dee wax sama jëf ba àgg ci way wa sëñ Fall dina ko dégg waaye tey yàlla dogal na way woowu bokk na ci way yi gën a siiw yi ñuy way sëñ Fallu mu ne aouzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim hadihi alqasida anshadahu cheikh mouhamadou moukhtar seck li madhi cheikhihi wa xalilihi mouhamadou fadul mbakke bi ismihi wa kunyatihi tur wi la jël bu nekk mu way ca jël miim gi ni mouhamadul fallu mooy fal di folli teyit ku ko neex mu fal la ngay fale kii mooy xawal fadailu maalam yaxwihi ahadun ku defa moom xam ne kii mooy saaxibul fudala moom raw na mbooleem ñi fi yaaram ci wàllu gune soodaan wa biidaan foore na la laaj nañu la maamam shérif la muy shérifun bun shérifun shérifun tuuma jublu wala du xotti saatir cheikh fallu du tas yaakaar cheikh fallu du daw ku nga laaj ku walaaj mu may la nga jël fallu xali yu la ni ko ana mouhamadou al muxtaaru maa ko way yow naa fallu yaa muy fi may ma ci la law laa ko cheikh fallu xéewal da wala kon du ñu wal waleet ne fay cheikh na fadala muy fadlun azimun sharifun farisun fatinun mbakke mbusoo bela kii mooy njiit te mooy wasila lor dem na ba faaw xéewal yi baawaan jeex abadan ku sopp cheikh fallu ku sopp cheikh fallu xéewal dëdd lor dëdd la deru ila man ada cheikh fallu fii abadin xayru ila ma tànn loo wax borom nga ko gaaw ko def ni yaay ka dëppoog waa ahlu diwaan ya seen mbooloo ma xaw nañ la baytil wilayati yaa yer fonn mag eh, chérif nga yaa jiite mboolem kënn wàllu yi nga gaal gaa ngi nii ku nekk ba taan yaa xale ku nekk ku dugg ci gaal sëriñ bi Cheikh Fallou àggale la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi ah, taala wa barakatu jërëjëf waay neex na lool de jërëjëf dafay mel ne neex na lool ndax sëñ Fallou dane woon day képp ku ma tuddee doom xaj na sama turandoo yëpp mënu maa gis seen waajur kenn ku ne ma xottil ko mbaa ma jox ko lu muy def ci ngénte la waaye képp ku ma tuddee doom ëllëg yowmal xiyaam turandoo woowu ak ñaari waajuram maa leen di boole dugal aljana kon loolu sëñ Fallou ko wax muy leer kon dama lay ñaan nga joxal ma jàngkat bi mu yëkkati bayit ci gàttal ñu tàggatoo ndax lu ñu amoon ci waxtu jeex na ci gàttal rek bila jafaaye tayeem asaaye tayeem xaadaaye taye basaye taye badaye ya sayyidi kulibi jodi wajalu jodi fawqala da wujode kulibi jodi wajalu jodi والمراد يا من أفاد بلا كراي ودادا خل المراد يا من أفاد هب للبورا خل القرورة هب نصورة لكل راي بارك الله فيك غرورا إن الخرور خرورا عبدا سرورا واسكو خلامي هو دكالامي بلا مالا bu ko defee nga daanale ci bayit woowu ndax mbirum télévision mbir defal ñaan bu ko defee ñu programme waat jotaay beneen jotaay incha allah ngir mën koo continuer ndax télévision day tënku ci temps loolu moo tax te boo xoolee plateau bi war a démarrer nii retard na 30 minutes pour war a tàmbali ñi ngi jégalu baax a baax na ci dagg googu ndax li duufandoo ci nag wi yëpp wu ci cin li loolu moo tax bu ko defee ñu jox la dig dajee rek ba jëmmi jamono incha allah su ko defee boo fi ñëwaatee ñu gën koo mën a yaatal incha allahu rabbil alamin fekk muy luñ programme kon mbokk yi nga xam ne yéen ngi doon seetaan Touba Vision ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ànd bi nga xam ne yéen ko doon ànd ak jataay bi nga xam ne moom lañ doon def plateau spécial fii ci buntu kër Serigne Falilou Mbacké ñi ngi sant sponsor yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci wàllu liggéey bi di leen jaajëfal bu baax di leen gërëm mooy Lamp Fall Lumière ñi ngi leen di sant ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi mbooleem techniciens yi nga xam ñi nga àndaloon ci liggéey bi tamit ñi ngi leen di bu baax a baax di leen jox dig dajee ba ci kanam tuuti incha allahu ñi ngi xaar Serigne Abdoulaye Diop Bitri ci plateau boo xam ne ci làkku espagnol la war a am incha allahu rabbal alamin wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil